su ma doon nobaan bi kii mu ne ko suñu aada daal duñu maye rakk te maye guñu ma moo tax ma may la kii waaye sàmmal ma yeneen juróom yaari at ma may la rakk ji nga boole ci daganoon na ci seen sariyaat mu sàmmal ko yeneen juróom yaari at mu may ko Raahel ku ci nekk mu may ko jëbeer ñu ñëw sëy si ci Yaqooba ki nga xam ne moom la jë mooy mooy xaw bi jut naa ak moom juróomi doom ñaari jëbeer yi ku ci nekk judal na ko ñaari doom yi nga xam ne mooy xaw bi jud na juróom benni doom ñaari jëbeer yi ku ci ne jud na ñaari doom Raahel nag moom Yuusufa rek la jurag Benyamin muy fukki doom ak ñaar Yaqooba am na fukki doom yu góor ak ñaar ñenent ñi doomi taara lañ ñaari ñaari doomi ndey tax lañ Yahuda yaayam ak yaay Yuusufa ñoo bokk ndey ak baay ni ma leen ko nettalee woon yaari bokk la boole ba nga xamee nag ne Yaqooba yi lu tax ñu tudde ko Yaqooba mooy Yaqoobu jiijiri aji mujj yaayam daf ko xamboor mu di seet moo xees ñoo siixoo ba nga xamee ne bëgg nañu juddu yàqoo ba juddu bëgg a juddu xeesu ne ko boo ma jëkkee juddu rek ma garalu gison bi dam lay suñu yaay dee wacc moo ma jëkkee juddu rek wala ma rey suñu yaay moo tax ñu tudde ko xeesu jijire aju mooy dëngee na waa jud xaar te juddoogul yàqoo ba ne ko ba bay suñu yaay man man naa la may yoon nga dem juddu xeesu jëkkee juddu yàqoo ba topp ci moo tax ñu ne ko wax ne ci topp ba nga xamee ne màgg nañ Isaaqa xeesu la gënoon a bëgg jëmi des Isaaqa ne xeesu yonent bu nekk yàlla may na ko ñaan goo xam ne yàlla du ko delloo ñaan gu nangu man nag ñaan gi ma yàlla may yow laa ko dencal demal rëbbal ma benn kéwél wàjjal ma ko ba mu ñor nga indi su ma ko lekkee rek jox la ñaan gi nga xam ne moom la ma yàlla jox yaay ja dégg ko yaay yaay Yaqooba dégg ko te moom itam Yaqooba la gënoon a bëgg mu dal dem te Yaqooba ne ko gaawal yow yaa ngi say gàtt reyal gàtt léegi nga wàjj ko ñëw yóbbu ko sa baay ndax nga jël ñaan gi balaa nga soo dikk moom ma nga rëbbi Yaqooba daal di reyal gàtt wàjj ko daal di ñëw rek indil ko baayam ne ko mën a xeesu sa doom indi naa la lañ ma waxoon Yaqooba di lekk sana ah xasag xeesu xasag Yaqooba day moomay xasew booba sin ma xana mu ne ko dee mën a xeesu sa doom jegeel ma làmb fekk mu ngi solof der pour bañ mu bu ko làmbee xam ne ko muy làmb naa ah waaw daal xase xeesu xasewu ma de xase xase yàqoo ba may xasew mu ne ko bàyyi lekk rek mu lekk ne ko yal na yàlla def ak yonent ci say sët gis nga yonent yi yëpp seen genn wàll yëpp ci ngistal yàqoo ba la jógee ba mu lekkee ba noppi nag ba yàqoo ba jël ñaan bi jeeg xeesu soo ko ñëw aw rabam wàjj na moom ba mu ñor mu indi ne bàyyi rab yi ma waxoon ak mu ne ko si di yaa fi ne woon sànq mu ne de mu ne ko ay ay dikk na kon Yaqooba jël na ñaan nga de waaye ba tey des na yow itam ma ñaanal la lekk ne ko yow itam tey doom yal na yàlla def ci ñoom doole ak pexe ak xam-xam ak bëri moom it moo ji tubaab bi Europe yëpp ñu ngi seen isu lañ bàyyi ko ñu ngi fee seen doole seen pexe di ñu la jël ba léegi waaye daal yonent yëpp Yaqooba dem na ak ñoom ba nga xamee ne Yaqooba am na fukki doom ak ñaar yooyu nag Yuusufa ma ca gënoon a ndawee gannaaw Benyamin moo géwént géwént bii de gis ne daal ay mbokkam ak ndeyam ak baayam yëpp danañ ko sujjootal mbokk yee nag daal di daje ne uqtuloo rey leen Yuusufa Yuusufa aw itrahu si ngeen sànni ko ardan ci suuf yaxlu wéet lakkum ñee leen waju abikum kanam ak bàyyi seen de ñu daal di daje nag ñoom doom bàyyee fukki yëpp ne léegi Yuusufa mi de nañ ko rey rek suñ ko reyee ba suñ bàyyi gisatu ko kon danañu xool ñun ñu fi nekk wala boog ñu sànni ko bu mu rànkal ko ci xàll bu sori ba xam ne lu yàgg yàgg yàqoo yàqoo ba dootu ko gis bu xamee ne xamatut dootu ko geesu kon dana danañu geesu ñun waaye seen Yuusuf a ngi fi yàqoo ba duñu geesu wa takunu da ngeen nekk min baa di ca gannaaw jox jooju xaw ma ndi sori nañu di ci loolu yooyu nag ñun ñëpp ñu bokk tuub dellu ci yàlla rek yàlla ku tuub mu baax la ñu dellu baaxaat xaala wax xaayal naa ji wax minum ci ñoom te moo yahoodaa te moo doon seen mag ci pexe te it xam nga jege ñaaleem la ndax yaayam mooy mag yaayu yusufa yahoodaa ne leen laa tax tuloo bu leen rey yusufa yusufa waaw ko sànni leen ko yaakaar baat yi jublu ci lënd bi bënn bi de bu leen ko rey su fekkee ni dara desul da ngeen def dara bënn gu nekk jëndi jaa lépp nga ba dem leen sànni ko ja rek te bu leen ko rey xanaa moo tax ne daal yan taqiru bon dana for ko baa bu fa yaara ci leen di doxkat kon du ñàkk doxkat bu fa dem for ko yóbbu ko ci meneen réew rek ngeen tàggoog moom de in kuntum dem nekk ngeen faa dina di way def de ñu ne waaw kay taxe mango xaaloo ñu ne yaa baana yow bàyyi sunu ñu ne nañuy def nag ba jot ci yësuba bàyyi moom ko bëgg bëgg ba bukkee rek toogloo ko ci kanam bu ñu demit moom du ko xebal ñu ne nañuy def ba jot ci yësuba nag sa bàyyam nanguwul mbuudi tàggoog moom ñu ne ñu nañ ko laa ji suñ bàyyi ñu ñëw ne yaa baana yow bàyyi sunu maa lakka ana loog yow laa taaman naa ba hóolu wulanu ala yësuba ci yësuba way naata nekk nun la naas yow na way laay la ñu jiit loo ñeel ko moo bàyyi du tax hóolu wulanu xebal yësuba mu ànd ak ñun li tax ñu di ko laaj rek a taxawaru leen wóoru ardilu xebal ko maanaam mu ànd ak ñun xaddan ëllëg yar tax mu fal waaw mu si wayal xam tam foontu de nan ko xebal ëllëg mu ànd ak ñun tamit su ko defee dana foontu dana sigira su ko defee nag falam dana fiir moo gën rek liñ ko fi tëj nii rek di dem fenn way naa naka nun la xaafisana way wattu lañu la jumoo ñu nag daañ ko wattu dara du ko jot xaala mu ne leen indi naka man day wax si ñun ñu ne dana jàqaloo maam tax bu ngeen demee at bii rek moom de waa xaafu dinaa ragal daan yàqaloo bu lekk toog bi ci lële maa ragal ne su ngeen ko yóbboo ci àll ba léegi tey ci lu jë ci lu fëkk ko ci seen loxo rek mu dee. waa antum te yéen xaafi dana way sàggan ngeen anu ci moom xaaloo ñu ne ko lay na akala wala ndem lekk na ko bii bu till wanaanu te nun wax ba suñ mbooloo lañu fukki ponkal ànd ak seen rakk till ju ko lekk dinaa naka nun seen boobale la xaafi dana way lot lañu def wante nga xam ne ñun si biñ faj gàcce rek ah yàqoo wane leen mu ngoo boog yóbbu leen ñooñ yàlla lépp luñ ragal lu dul yàlla rek yàlla dana leen ko xiir bim ne dafa ragal ne ci li dana rekk doomam rek déglu si liñ koy wax buñ dellu si rek ne ko ci li lekk na ko wala ma za boo bañu demee bii ak Yusufa waaj moo tañ dogu nag ande jandoo bu ñu defat ko fi xaabaati ji bi ci lëndamit ba nëga bañ demee nag ñu dogu ci sànni ko ci teen ba la nga xam ne moom lañ tëraloon ci seen pexe rek Yuusufa nag daal di tàggu bàjjanam mu daal di ko soloon bu bu yonent Yàlla Ibrahima ma Jibriil ñu doon yonent Yàlla Ibrahima ba mu nekk ca safara sa mu ma jóge woon aljanna ñu ngi ko doon denc di ko donoon te fee booba bàjjanu Yuusufa moo ko amee te moo yar Yuusufa te Yuusufa rek la bëgg mu daal di ko génne ca taaj ba ñu ko dencoon daal di ko soloon Yuusufa nag daal di ko laxas mu mel ne jant bu buy dox ci taar ànd ak doom bàyyi de bañ demee balaa kenn jot na xamal yeneen su ko nga am ñeent fukki at waaye Yuusufa moom natt bi ko daal tax na yàlla gaarantu wàcce ci moom yonent bi xaar te doon fukki at ak juróom-ñaar la am moom la buur di wax daa way naa sunu wayu yi lay jëm ci moom Yuusufa te moom ca biir kambarteen la lépp na bi am na moom wallaay da nga solo leen di am rini ci mbir seen asa yéde yàlla ne ko ma xamal la ne faw doo dee sa doom bàyyi duñ dee lu may ji ganen laa ñoomati nga natt li leen lii ñu la def rek boobu te ñoom laayan solono xam si ñu ni ngay mujj rek ñoom xamuñ ni nga xam ne moom la yàlla na ma ceew rek añ daal di ko sànni ca kambarteen la daal di dem seen yoon nag fekkoon nañ nag yesuba la gën a jeex na wa jaawoo seen dikkal abaam bàyyi seen saan ca gee ñu guddee guddeelu nag guddee guddeelu ba nga xam ne gee passé na nag ñu soog a ñëw yëpp ko ne danañu jooy ba ñëwee ba jub seen bàyyi ñu ne ñun ñëpp nañ jangoo di jooy jooylu ñii jooy jooy ñii ñii ñii yàqoo wane lu xew ana Yuusufa xaala ñu ne yaa baana yow bàyyi sunu innaa naka nun zaab naa dem nanu nastabiqu di suqate wa tarak naa tan bay Yuusufa Yuusufa ya ndama taay naa fay malaan sunu faakale wata lekk na ko biir bi tilli rek dañ demoon waaw bañ demee di sànninante ay xeer mooy suqate yàlla def rek Yuusufa suñu rakk ñu ne ko nañu ne ci suñu bagage waaw wattu ñu suñu malaan ñu del si rek fekk tilli jàpp na ko ba lekk ko maanaam sa waaye déet yow di mu ñu nga ji dëggal danaa ci noonu wala ku naa doonte nekkoon nañu sax sax nañ koy dëggal waaye suñu waxoon dëgg sax yow doo ko gëm waaye lii daal moo am wajaaw tañ dikkal tañ dikki ala xam yi ci mbubbam bi dañu ci deret te si biñ ci di boromi nar mbubbam yi si ñoon nag ñu daal di rey si mbottu fab deret ja taqal ko ca mbubbam yeesu ba man daal di indi nag jox ko yàqoo ba ne ko gis nga mbubbam yi ñun soloon ñu nga ci ligi lekk na ko gis nga ni mbubbam yi taqe deret yàqoo ba seet mbubb ma ne ah ñu ci lu moo lewet ci liggéey rey rey sama doom ji ba lekk ko ba mu jeex soxla ci sax malaat mi ñu ne ko gëmuloo li ñu wax rek waaye loolu moo am xaala wax Yaquba ne bal bayit te wala rafetal na lakum ñeel leen am su su may bakkan seen am rek mbir rek ba ngeen def ko te sabrun man ñeel na ma muñ jamil bu dee ay rafet de wala yàlla almustaanu moo di kuñ dimbandikoo alaamaata si foo na jël da ngeen melal ko rek Yaquba daal di wax lam war a wax nag man muñ ko rafet rek moo war waruma tiit te dimbali ko ma kenn ma yàlla ci mboolem ni ngeen di wax ci mbiri Yuusufa waaye li ngeen wax yëpp doomu ma ci dara nag dara du ci dëgg te guddi ci mbiri ñëw siyaara si Yaquba ci mbiri si sa yëpp dañ ko daa siyaara si mu ne tilli gi waaw na nga def bare sama doom mu ne ko sa doom gis nañ yàlla rey gàtt bu dëkk ci dëkk bi nga nekk sax sa kaa doom jëjjëf rey sa doom te sa doom a ngi dund sax deewul moo taxoon nag mu ne leen xam naa lu ngeen xamul ba loolu amee nag yow su fa nekkee ci teen ba wa jaata dikk sayaaratun ay doxkat fa arsaloo te ñëw ni waari doon ajiroot ajirootal seen fa aslaatam yoor dal waxoo baagam ba ca teen ba Yuusufa jafandu ca baag ba de borom baag ba xëcc mu diit mu defe ne ndox la rek mu xëcc ba mu génn ca bitti gis ko mu Yuusufa de xaaral mu wax moom ba kaddu ga ne yaa bës laa xaw na ma bët sama affaire yi ku daa moom sax jaam la moo xor ci teen bi mu ne man maa kontaan fii xor naa gone jaam ci teen bi fekk na doomu bàyyi nag bañ defee loolu buñ koy rek ñu la wër teen ba waaw làqu ci bi gaj bi di déglu ba xam lu mu dem yow sufa di mujj ba rootkat ba waxee ne maa kontaan xor naa gone jaam rek doomu bàyyi dal jaar si ne ko kii suñu jaam la ñoo ko moom daf ñoo réeroon noonu lañ doon wut boo bëggee ñu jaare ko. waa solo te ñu nëbb ko bi daa mu ñu yóbbante ñu jaay la ko ah mu ne waaw moom jëndkat bi mu ne Yuusufa jaam nga Yuusufa di bëgg a wax du ma jaam xam ne su ko waxee ñu ñu defati ci moom beneen pexe mu gën a métti rek mu ne waaw jaam la te fas na jaamu yàlla la ñu daal di ko jaay de wala yàlla alim naa ji xam na moom naa am dana jëla danañ jot ko yàlla xam na lañ def yëpp nag wasarawu tañ jaay ko ci sama nit ci njëkk baax suñ bu dee aji wàññeeku dara yi ma ay dërëm maa doon ci yiri way ñëw de ñu jaay ñu ne ko dañ la koy wanteel rek waaw ñaar fukki dërëm rek doy na waxtaan wa sañ nekk ñu ne saay dina jaway dëdd nga fi ci Yuusufa de booba bëggati ñoo gis Yuusufa rek lu leen tàggale Yuusufa rek sa dina seen xol ñu jaay ko ci ñaar fukki dërëm koo ko yóbbu jaamam ñoom itam ñu ñibbiti gis nga yàlla xaasi jaamam yi daf leen di nattu ci seen bakkaar yu ndawee Yaquba soo gisee yàlla nattu ko ba tàggali ko Yuusufa dafa amoon dafa amoon am xaaf xar mu jigéen mu amee doom mu di ko ratal Yuusufa fokk doom bii da am lu namp ci yaayam te Yuusufa du suur Yaquba ren di mbottu sa pour yaay ji soow mi lépp mën a doy Yuusufa ba mu rayee mbortu soosu nag yàlla ne ko Yuusufa sa doom ji tax ngay ray mbortu si xar mii danaa ko fay ci yow des ba dellu si wut lu may tànk nañ Yuusufa jaay ko mu di jaam Yuusufa ci boppam itam dafa mas a seetu gis taaram bu rëy boobu genn wàlli taar Yuusufa lañ ko jox ba mu seetoo ba gis taaram bi rek ne kaw teer ay suñ ma doon jaay dinaa seer wala loolu moo tax biñ ko jaayee ñaar fukki dërëm rek lañ ko jaayee wa qaala ta wax alla si waaja nga xam ne istaraaw jënd na mu ko min misra ca misra Qusayfir booba mooy hasiisu misra mooy buuru misra moo jënd Yuusufa liim raati ñeel jabaram kirimi tadalal masuwa u taxawaayam asaani an faana xattan na yàlla bu mu jariñal nu rek aw na taxisoo ci kenn jàpp ko wala dan mu doom c'est-à-dire que kenn niñ musale Yuusufa jaray ak kàmb ga lañ waaw noob kolob asiisu misra mu mu sopp ko lool makka naa lam jàppandal Yuusufa ñaar Yuusufa ci lan ci suuf si misra de way nu alimao ak ngir mu xamal ko min taawili la aari yi ci lim gilantu de wala wala yàlla xaalibun aji noot la mu ala am ri ci mbiram de wala kin lu fi nekk ak srana fi gën jëbëri nit ñi laa la mën a xamuñu loolu de ñaar fukki dërëm lañ ko jaayee ñoom mbokk yi parce que ko jëndoon nag indi ko misra nag di ko jaay moom it ca marché ba des bañ na danañ jaay Yuusufa te tali ma ni mu rafete moom nga susal kenn su ko gis commerçant yi ci àddina yëpp ñëw xëccoo si nga suba la waxoon ñëw na nag njëkk dana seer ku nekk ñëw rek nee na foog mu jënd yoo suba màggat bu jigéen benn sobarank amul lu mu ne waa poqayam bu mu xëcc indi na poqayam nee nañ ko bind ci ñi ñu bëgg a jënd yoo suba rek ñu ne ko sa poqay bii defe nga ne mën na laa may yoo suba mu ne ñu bind ma rek ci karna bi nga xam ne ci lañu bind turu ñu ñu bëgg a jënd yoo suba rek man loolu dana ma rek ñu jaay ko nag ñu xëccoo ko ba nga xam ne teefeen ci wurus ak xaalis teefeen ci misk teefeen ci harira teefeen ci xoot ci waayu koor loolu dañ ko mujj jaaye de te booba ñeneen ci cent kilo la moom ñeneen ci cent kilo ci libi dollar ñeneen ci cent kilo ci dërëmi xaalis ñeneen ci cent kilo ci harira ñeneen ci cent kilo ci misk ci xoot ci alal ji nekk loolu lañ ko mujj jaaye nag kenn mënu ko jënd lu may buuru misra buuru misra ko jënd say fii ba mu koy indee ca néegam nag na jabaram nag ma teralal xale fii yaakaar naa ne dinañ am ci moom njëriñ wala sax ñu def ko muy suñ doom ndax ñu ne mu ñoon doom te jabari ak yi suñu sa booba mooy salixaa jabari yoosuba salixaa borom xisa la jigéen la woon yoo xam ne doomu buuru Maroc moo ko jur ci Faas ba mu matee sëy góor ñëpp di ko ñaan li taaram mu neraw moom ndaw sa diwante gis xale boo xam ne mi ngi mel ni weeru badar ñu ne ko ki day sa jëkkër fu mu dëkk ñu ne ko misra mu xeew buur yaa dinaag deretangeeg ñu màgg ñëpp lettre yi bàyyi ko ci ñoom ñu ñaan ndaw si lettre yi ñëw rek bàyyi joxoo ko moom Zalixa ne ko ñii dañoo bind di la ñaan mu ne xasiisu misra moom bindul ñu ne ko xasiisu misra bindul mu ne daal moom la ñu la def kat di bind di bind di bind ay at suñ ko waxee rek mu ne kenn bind jóge misra bàyyam ne ko kenn bind jóge misra rek mu ne moom ma ngay nekk de te bàyyi bi bind nag xasiisu misra fii ko koy fiir te booba moom mi ngi ni ab tuuña du du góor ne ko sama doom mat naa sa yaat ne yëpp mu koy ñaan doon na ne yow la bëgg yónneel ma may la ko ku fay fii yónni ndaw ay ndaw ñu may ko ko dee daal di yeb ci gaal moom Zalixa ak ci ku fay fii njëkkër ñëw di ko teeru ba mu ne cëpp wàcc na ana sama jëkkër ñu ne kii mu yuuxu rek defe na kam jigéen toon la ndekete yoo du kii mu nekk ci naqat woowu nag ak jaaxle boobu te jëkkër ji xarul sax di góor mu nekk foofa di muñ xamul luy ak mu jëm rek jëkkër ji ñëw benn bés indil ko xayal teraw jaam mu Yuusufa ne ko dañ ameel ma jaam boobu danañ ko teral bu baax yàlla mën nañu cee jëriñ mu seet rek mooy kam géntoon wala maa xalaxa ba jote Yuusufa asu doo dëram ba Yuusufa amee ñett fukki at nag ah tey nag moom jox ko man xam-xam muy jëriñ waaye man ak dégg diine de wakasaalika kam nin faye ko nañ ci leen faye almasina wéyén ñe de wara wada duuta sakk ko la ci jigéen ña nga xam ne foofu moom fi mbay ti aaji nak la mu jëndee gam nag sali xaata di sakk Yuusufa mooy ay benn ba am na fii ci boppam de ne ko ñëwal sa dëgg man Yuusufa bañ mu xoo parce que néegami jigéen yëpp ne leen xale bii day moom rek laa bëgg ci góore àddina te mënuma muusa muusa muusa muus te waxam moom sax mu tontu ma sakk leen ma pexe moo jafe ci moom ak ñu ne ko lu yomb dañ lay tabaxal genn kër rek ñu tabaxal ko genn kër def ci juróom ñaari néeg néeg ci gannaaw néeg néeg ci juróom ñaari buntu la ko ak jugee néeg ba ñu defal ko fa lal bu jóge ci safar jadul axbar lu doon xari nga ñu def ko mu rafet ñu indi ca néeg ba fab gëtt def ca néeg ba doom feer salixaa moo gën a rafet ci jigéen àddina mu sañse nag létt boppam bi nekk létt bi ci nekk waaw ñu ngi ko lettal hurus yaa xoot mu xonq coy mu sol ay yére tayam nag daal di toog ca lalam booba nag ne dëkk léegi dem leen xool ma Yuusufa dugal leen ko néeg bu mu romb rek tëj leen néeg bu mu romb rek tëj leen ba mu àgg ci ma ñu dugal néeg bu mu romb rek ñu tëj Yuusufa duggee rek ñu tëj Yuusufa duggee ñu tëj ba mu àgg ci néegam juróom-ñaareel ba nag sare xaane ko Yuusufa donc xool sama xar kanam bi mu ne ko sa jëkkate bi gën a yore mu ne ko Yuusufa daaw teesu sa xar kanam day rafet mu ne ko suufa ko xelal lekk saxe rek te lay mujj mu ne ko sa bëggee ka rafet yéesu la mu ne bët yooyu muy njëkk a yoon parce que ndox tuuru bu may nëb sa kawar gee ka rafet yéesu la mu ne kawar googu yëpp dafay mujj di tasaaroo mu ne ko yéesu la ñëwal ñëwal sa yëg man ñëwal sa dëgg man de mu ne ko yàlla ma yàlla musal ci loolu génn di daw mu di ko dab jàpp ci mbubb ma Yuusufa di daw moom muy fett mbubb ma xotteeku ñu def le ba ca buntu bu mujj ba ñu fekk jëkkër jaa ngi taxaw moom lay wax waxalaqati tam tëj la baaba buntu néeg ba waxaala tam wax ne ko hiita laka ñëwal ci man de ne Yuusufa ñëwal booloo man dal di rafeel boppam ne ko maa ngi ci jigéen ñi jigéen bi gën a rafet ci àddina xaala wax Yuusufa maa sa daay muslu yàlla ci loolu Yuusufa ne yàlla ma yàlla musal ci loolu du ma ko def mukk de inna woo naka moom sama sang bi ma jënd rabbi ya sang sama ah sama rafetal na mu mas waaye sax waaye sama sama borom bii nga xam ne ni mu baaxee ci man lu yàgg yàgg du ma ko xuru ci jabaram de inna woo naka dañ bidam bit daa yëf liu texe ci saari mun a way njaalawee de li may sant njaalo la te man waa loolu du ma ko def de buur ne wala xad xamat waaye itte woon na saliqa ci Yuusufa saliqa moom itte woon na Yuusufa boole moom waa mata itte Yuusufa bia ci moom lawla am raa duggante ko nag ak gisam buran rabbi yi kaaw te fi boromam kon mu boole moom de loolu la jalan firi Yuusufa saliqa itte na jëm ci mu boole moom Yuusufa itam su taxutoon ak kaaw te fa yàlla gum gis kon la la saliqa bëgg dana ko def de bisimilah yi wax foofu yëpp dara amu ci Yuusufa ci teew Salixa sax defu ko ba nga xam ne Salixa def na ko noonu dal di rafetlu boppam jaaxaan tàcc ko ne ko ñëwal borom man dafa seen gis diwaan yonent yi ñu ne ko booy laal ndaw seet rek ñu forsa ci diwaan yonent yi mu gis yonent yàlla Ibrahima mu ngi matt baaraama ngi ñu ne Jibril wàcce daal di dóor dënn ak Yuusufa mu daal di wàcce man yi ca saasa moo tax de mën la dem ca ndaw sa itte sax itte woowu ko wax naa firim jalaal jalaal dafa wax ne wala xaraxa mag itte na salixa ci ci Yuusufa mu booloon moom mu ne waxam ma te itte yaa Yuusufa bi yaa ci moom lawla an raa duggante ko nag ak gisam buraan rabbi kaaw di fi boromam dafa na tele sant la moom jaal nekkoon tey mu boolal moom de dañ ko atal waaye loolu xellu ci maqaamam Yuusufa de ci ñi dal wala xala xam man itte na sali xaa ci ci Yuusufa boolal moom kooku moom xamut yeneen loolu rek la waroon a def moom la def walaw laa an raa dogante ko nag ak gisam moom Yuusufa burhaan rabbi kaaw de fi boromam am ma kon tey ñitte moom it gaa ji moom de su taxutoo nag yàlla yoon na ko kaafee du dox diggante noonu muy teewoo Salixa kon moom it muy teewoo ba de teewoo sax defu ko moom ci teewoo ko sax yënga layam nag Yuusufa mooy gor mu ne sangam bi ci ku tey fiir ku baax ci moom la kon nag moom du ko xuru ci jabaram de amoon na benn xalel lu wàllu yu buñ daa wax Yuusufa dafa rafetoon lool dëkk jigéen joo xam ne risaas la jigéen ñi gis ko bëgg ko ne nañ ko ko xool daf koy invité mu ñëw mu defar ñam ñu bari am naa ñu bari mu lekk ba noppi mu xaw ko ci biir néegam moom ndaw sa tëj ngir ba soog ko ne na boolak moom xale ba bañ mu ne fokk mu lekk nag xale ba daal ne ko ndax kat yooyu fi dama ñambale moom ma dem bagage rek sa jënd mu ne ko cabinet baa ngi nii voilà mu dugg ca cabinet ba tojal ak tojal yëpp yëpp ci xar kanam ak yaramam yëpp dafa génn ndaw sa bëggatu ko ne kii dof la ak yeneen dafa ma nekk ñu ba wax mu génn ba mu génnee tojal yëpp yàlla sotti ko gëtër ñi fi fu xale ba toll rek da teñ gëtër ñi fi te guddi mu ne la gën ci ci biir mu naa ko Yuusufa ah mu yom Yuusufa nga dikkee yaa doon Yuusufa moo tax ñu laa ko wax Yuusufa salixaa fëkk Yuusufa moo tax nam ko gisee woon ci géwént bàyyam maye ko Misra mu nekk ko tey mu gën a ñaaw ci góor yaa dina sama fii di tuña man da sëy mu nekk ak moom ay at yu mu di jooy bu dee bëccëg suñ jëwén doon ne jarañ na ci loxoom ci jaamam boo xam ne moo ko moom lu ko neex mu soppandi ko ci moom mu defar këram di bëgg a tëddeeg moom rek loolu sax mënu ko am tabaxaa dañ jëkkante al baaba buntu ba yoosu faa ngay daw ndaw saa nga koy topp ni waaw jàpp ci mbubbam di xotti ne du dem mukk te tudd sa moom waxal da tam xotti xam ni doo mbubbam ni mbubbuñ ca gannaaw saatu bu yoosu ba xotteeku ca gannaaw doo ko ni ca wax ba mbubb ma waaw anta yaa fay fekk dañu daa jëkkatam la dal baaba ba buntu ba de bañ bañu dàqe ba ñu jëmuñ ci ba nag yoosu ba ne mën na génn nga de xaar ba jaar ci fekk jëkkëram a ngi taxaw xaalat mu wax ma ngay sellal boppam nag ñu ngi sellal jëkkër ja naa ko maa jasaaw man araada ana lay fay ak kanam na te ay tëj nañ ko soxal jaadoo ila am jël ndare bu tëjee ba saa asaabu bi ko mbugal ali mu daa ji metti de mu ne ko sa jaam bi daf ma doon sàkku xam nga ne jaam bu dem di sàkku jabari buur day waaw waruñ ko def dara lu may tëj wax nañ ko rek mu tëre mu ne nañ ko tëj wala ñu bugal ko bugal mu metti xaala wax Yuusufa muy wax dëgg ba rek muy moom rawatina bi fàttali ma ma ànd mu ne waxul dëgg de moom moo ma doon fàq ci sama bopp man maa bañ ku fekkee ne bon naka laay xamee nag ku ci wax dëgg ñu wax ko ne doom dana jib ndéem yi mooy seede seen diggante benn jigéen a ko doon matu jigéen ja daal di wasiñ ca saasa doom bi juddu koro buñ ko wa sayida sa seede saa yi dina aji seede min aliha ci ñoñ saliha jaam boo xam ne jaam doom bay taxu salixaa boo xam ne wasi na doom bi doom doom bi juddu faraguñ ko doom jamoo wax ne uñ ko anandem nekk na xam ni soo mubba mokk daqateef na ko mun ko buliñ ca gannaaw mun ko buliñ ca kanam te sadakat bam dëggal na salixaa woowoo moom yow sufa nan kaa sini waaji nekk la mu ca way nar ñe wayun ko anandem nekk na xam ni soo mubba mokk daqateef na ko mun du buliñ ca gannaaw fa kasabat nar na mu bon woowoo moom yow sufa mu ko def naa ji nekk la mu jawee dëggal ñi rek gone gi juddu ko xees mu ne nañ seet mu ji fu mu xotteeku su fekkee ci kanam la xotteeku kon Yuusufa ko doon sàkku muy bañ ba xotti mu bëm su fekkee ci gannaaw la xotteeku nag kon Salixa ko doon sàkku muy daw ba mu xotti mu bëm ci gannaaw xale bi juddu ko xees safara buñ ko ma wax loolu wala mara ba gisee jëkkati Salixa xam ni soo bu Yuusufa ma xudda xotteef ko mun du buriñ ca gannaaw xaalam wax ne dina woon naka moom waxi Salixa ji lee min kay di ku naa ji nekk la ci pexe seen yéen jigéen dina kay rek na naka pexe seen naa si mu naa ji màggal be waaw ko tey fii ku xiiw la mu daal di xam dëgg ga rek xam ne Salixa ko doon takku mu ne wax ji Salixa doon wax yëpp di dañ talu di ñu jowoon na mooy pexe jigéen rek jigéen nag seen pexe lu rëy la mais Yuusufa yow Yuusuf aaril dëddal xam naa saa wala fii la mu ne Yuusufa njub nee nañ ko fàtte rek bu ko nekk leeti mukk bu ko kenn dégg bu mu siiw ci dëkk bi ne Salixa wa saqri balul yow di sam biki ci bakkat ne ndaw si yow nag na nga balu yàlla sa bakkaat nekk na ko yow nekk nga meew sàkk na jawee bakkaat ñi rek ne ko yow yaa tooñ balul yàlla Yuusufa yow nag bu ko kenn dégg ñi wax fañ juddoo ñu ko alxuraan nettalee Mariama bint Imran fam juddoo la waxe ak seede si Yuusufa si le fim juddoo la waxe ak yonent yàlla Isa fam juddoo la waxe am na keneen ku judd wax ci Madina ci jamono yonent ñu daa ko wax barakatu ñooñu ñooy ñi nga xam ne wax nañ ci biir te kenn faragu leen te xam jigéen yàlla melale na ko fii ne lu màgg la gannaaw bu waxee ne te xam saytaane lu doxati la te xam saytaane moo gën a woyof fuuf te xam jigéen moo tax saytaane du naagu ci benn jaamu bi yàlla lu may mu dikkee ko ci wàllu jigéen de moo di siitam ah tey jii nag àtte na seen diggante na ne Yuusufa boo demee noppi rek te suturaal ndaw si xabaar bi mu gën dégg ndaw si mu ne ko yow it balul yàlla te réewul rek xabaar ba si jëm Misra ñëpp waxtaane ko ñëpp dégg ko nag naa Salixa daf doon sakku feraw jaamu ci muurus dëgg dëgg dëgg di nopp jaamu wa qaala ta wax ni tootum aw jigéen ci Madina si jënd ngeen di Misra imraatul azizi jabari buur bi waaw du leen mu takku fata jaamam ba di am na fii ci boppam xat taxafaa barxal na mu ko xubban ak cofeel dinaa naka nun naraha dana nu gis ko yota daa lin tig mooy mu bi daa di gise waaye sa leexaa moo rus tigi tigi tigi di sàkk ab jaamam rek dem di ko bëgg jigéen njëppam koy jëw nag di wax loolu wala maa samiat ba mu déggee ci makk yi nekk ci jaw seen alxames mu yónni di la yéen a jël ci ñoom waa dara te mu xam loolu nañ ñaa leen mu takka am ñam mu ñu daga ci doge de mu daal di ne jigéen ñëpp invité naa de daal di lal taabal invité jigéen ñëpp ñu lekk ba suur naan ba mandi mu indi savance nag ku ne mu jox la benn savance jox la paaka ne la daga lekk waa aata tam jox la waaye def ñu képp kenn ñu ne ci ñoom ci kinam ab doget ku ne mu jox la paaka wa qaala tam wax Yuusuf li ñaari Yuusufa waxuñ ceeb laa lay dégg seen kaw ba ku ne jàppee sa France beneen dox France def nag sa leqaat dugg ca biir Yuusufa demal nga taxaw fa kanam jigéen ñooñu ma gis. wala maara ay na baanu gisee ba ñoom jigéen ña ak bar na ñu màggal ko rek ba ko jigéen ña gisee ñu màggal ko ak bar na ñu bërëgal ko jigéen ñëpp gis mbërëg ci fañ toog ndax taarab Yuusufa waxataana tañ dagg ay yow na ay loxo seen ku ci nekk yaa ngi dagg sa loxo defe ne France bi ngay dog waa dagg seen loxo yëpp ban dagg te yëguñ ko ndax taarab Yuusufa waxul na tañ wax ñoom jigéen ña ne xaasa tàll billahi ñi ana yàlla kaw teef yàlla moo tàll maa xaasaa déet Yuusufa mi de ba salan bi doomu aadama dina xaasaa déet ci de illaa malakul ndare malaaka la këriñ lu mu daal di tedd fa malaaka yi ci kay di it malaaka la malaaka yi malaaka yi duñ mel nii mukk malaaka ma gën a tedd ci malaaka yi waaw mooy Yuusufa mi de dem wala taar moom la ko yàlla joxoon moo tax jigéen ñi moom ñu seen bopp te sàkk ko yonentu taar lépp la ko yàlla jox waaye Yuusufa taaram dafay taar rek yonent nag moom taaram dafa boole ak màgg te jim gën gën a rafet Yuusufa jigéen mosu koo takku ndax moom ku ko mos a xam boo ko gisee da nga koy ragal ba ci waaw soo jaxasoo moom nag nga koy soog a ñemee xam ne moo gën a lewet ci yëpp waaye yonent gën a rafet tuuti Yuusufa ah ba nga xamee ne jigéen ñi gàccal nañ ah Zalixa noonu la ko fajale bañ gisee Yuusufa mbërëg nañ de tagg nañ seen loxo te yëguñ ko mu daal di ruccantiku nag xaaral bu wax leen ba saaliku nag kooku de seen àll si mooy ki nga xam ne lu na nu yedd ngeen ma fii ci moom de mu nekk ngeen ma doon yedde naa dama ñàkk jom bay nopp sama jaam mu ngoog jaam baa ngoog Yuusufa moomu la wala xaraawatoo walaay sàkku na ma ko am na fii ci boppam fa saasana tam bañ man maa ko doon sàkku moom moo bañ wala in lam yafal waaye wallaay dem defu mu maa am roo la may digal ko day génn na dee na tëj ko wala yàqal na dana mu nekk dina saaxir mu cawe torox ñu rek waaye léegi nag waaw dagu naa ji faw li ma koy laaj dana ko def wala rek dañ ko tëj kaso rek te dana torox jigéen ñi ne ko gudguddal toppal sa sang bu jigéen rek lu mu bëgg defal loolu xaala wax Yuusufa ne Yuusufa daal di jaaxle nag nañ yàlla buñ siitee dellu ci seen borom ñu ne rabbi yow borom sama tijnu kaso bi ah bu moo gën a soppi day jëm ci man maa yaa doon nañu jël dañu waxoon day jëm ci moom de mu ne yow sama borom kaso bi ñu may tëkkoo nañ ma tëj kaso moom a gënal lay waaw may dem ci li nga xam ne moom la jigéen ñi sàkk ci man de way laa tasrif dem soppiwu la am ni walis ma kay daw na texe seen as bu ma jàng ilay na jëm ci ñoom waa kon sama nekk ñu jaay dina joxe bàkkaar ña de te soo ma soo ma fegalu texem jigéen ñi yow yàlla kon danaa dem ci ñoom de te bon danaa bàkkaar de ñaan na yàlla di tëj ci kaso daal te mu ci jaayu jigéen ñi buñ waxatee rek mu dem kaso moom Yuusufa ndax loolu la ñaan fekk na nag booba dafay ndaw rek bu matoon dafay ñaan yàlla musal ko ci jigéen ñi musal ko ci kaso bi ndax yàlla mënoon na yëpp waaye mu ne kaso bee ko gënal te na ko yàlla musal ci jigéen ñi tam dem kaso moo tax waaw mu dem kaso de tabbi na ci loolu fii ñaan naa lu gën ci man yàlla mu ko yàlla defal déedéet ñaan li nga bëgg rek yàlla mën na laa may li nga bëgg te def ko mu gën ci yow ñaanal yàlla mu may la li nga bëgg te su la ko mayee na ko def muy lu gën ci yow moo gën ganaa lu jëm ci man yàlla ma ko yàlla defal waaw ñaan ñi réer la mooy Yuusufa ñaan ñi moo ko tax a dem kaso ne kaso bi ma gënal waaw jàdd ci jigéen ñi booba it mënoon naa ñaan yàlla mu ci jigéen ñi mu ci kaso de moo nga daa topp feeñ la mu ñaa leen min baa di maa raaw ganaa bu ñu gisee laa ci tegtal yi tegtale dañu ak Yuusufa ba nga xamee ne yàlla feeñal na nag tegtal yoo xam ne xam nañ ne Yuusufa liñ ko doon waxal yëpp dara du ci dëgg ina no nañu tëj ko attaay yin ba ci jeex ak dara wax ji de buur bi ne terewul rek Yuusufa nañ ko bu ci kaso ba ndax waaw mbam mi rëy na fu mu romb rek ñu ne borom ñu ne waa jàngoo lii mooy borom kaso bi wax ji di jël di law rek war nañ ko tëj ci kaso ba nit ñi fàtte wax ji mu soog a génn ñu daal di yóbbu kaso Yuusufa ne ko rab ci kaso ba kaso ba daal di toxu ca Zalixa Zalixa moo ne ci bitti waaye moo ne ci kaso ba yónnoon ne ba Yuusufa ne ci kaso ba dafa yëkkati lu tabax lu soroor waaw bu gudd ci kaw néegam bu bëccëgee rek mu lay ci kaw soroor ba rek di ci xool kaso bi kaso bi rek la bëgg a gis ci misra amatul lu mu bëgg a gis guddeeg bëccëg ma nga ca soroor ba rek dëgg bu di xool kaso bi rek ba nga xam ne yow si wàllu kaso ba. wa daxala Saqaraf maahu ànd ak Yuusufa si na kaso ba ba tey aali yaari kero yi yaari kero ñeel buur bi rek buur bi nag amoon na ñaari bëkk néegam kii moo koy njaral naan bi muy naan kii moo koy toggal waaw ñam bi muy lekk rek ku bëgg a da nga laa wax bi nga xam ne ni ma bëggoon place ba ñëw fay toogkat bi rek jox ko saabam feesagul ne ko na ko defal poson ci ñam bi buur bi lekk ndax mu dee mu doon ko su fi ñëw daal di nangu toogal buur bi ba noppi sax poson def ca ba mu ñëwee ba dugg ko jox muy lekk kii defar naan bi ne buur bi bu lekk ñam bi rek poson a ci nekk su fi ñëwee dafa yëngu naan bi nga defal poson a ci nekk ah buur bi ne ah ne waa ji naanal yow sa njaram a ji waa ji daal di naan njaram toog mu ne ko yow lekkal sa ñam yi mu bañ mu xam ne moom borom ñam yi moo def poson bi waaye mu ne walla kii itam yëgoon na pexe bi ñoom ñëpp nañ leen boole yóbbu ca kaso ñu fam ñaari karo yooyu boole yóbbu fa tëj leen ca kaso ba de xaala wax aaduma kenn ci ñoom te mooy na dal katab buur bi bañ na ca ca kaso ba yóbbu woon yàgg nag kenn ne indi yana kaman araan yëg na ma jël sa sama bopp en ce moment na saxal sanga waxaale sa wax laa xaral keneen sa mooy borom ñam ba indi yana kaman araan yëg na ma jël sa sama bopp amin dama ñëw soo xalaat ci kaw bopp sama bopp sa mburu daa ko gën a lekk tey gën a am ci moom nag dinaa sonal yow yow suba ci taaw yi nii ci firéem dinaa la kalu mara kadra lu gën a mu ci gën a yëngal ñële ñaari xale xale yi nag kii ne ko man de damaa ngi yënt maa ngi xam ñetti pañe bu ci nekk mi ngi fees ak ñanam ma ñëw di njar waa may may njar njaral buur gi na ma ko daa njaralee kenn ki ne ma ñu dem ak yënt am ñetti pañe mi ngi fees ak mburu waaye picc yi ñu ñëw di fukki ci mburu mi firim ñu ngi yënt gi fekk ci ko ñëw suba booba tugg tugguloon ci sa kaso ba rek mu ngi di lëgg yonent ba nga gis ko nam ko tuddee ñu ne ko suñu nit yi yonent ne xaala mu ne xaala wax yow su bañ naa leen laa yaati kuma dikkal ci leen taamu ñam ko soxaani yow def na wërsëg leen ko ci yonent illa na ba kuma nga rek ko naa leen taw yi ci ciréem ab lan yaati yow kuma jëkk mu dikkal leen de yow su bañ leen doon kàddu naa leen ko ci ci ciréem de loolu mën a yonent rek naa la ko fi di dégg daal kuma loolu seen maa dama ñaa ñina kele kala xamal ma rabbi borom sama ñu ne kamaan taraktu bay naa mi sa xaw ni ñu ne aw nit laa yëg ñu ko ñu lay jël boobu te ñoom kaafir na rek lañu laa rek jaala dara boobu ñoom kaafir na rek lañ toog wa talaatu dama topp ñu ne taa bàyyi ñu ne bàyyi sama Ibrahima Ibrahima ko sa xali la ko yaqo ba yaqo ba ma taan xedu dana ñu am ñu ko bu ko kala ya yàlla mu seen dara daal de boobu ni taw yi ñu ba laa ñu nak ñu waal na ci waal na ci ak waal ñu wala ci nak nak astrana ci ñu ko ñu defal daa ko ñu ci teewal de waa mi yalla waar nak loolu ci rek borom xam-xam yi jàppe ne borom xam-xam su ma yee ci jënd te mën a jàngale xam-xamu sariyaatu waaw mu soxla jàngale xam-xamu sariyaatu moo gën a yee ñu ci jënd waaw moo tax Yuusufa ñu ngi leen di xool ci xam-xamu sariyaatu yi jiitu duñ leen di joxat ci jënd bi mu naa leen yaa saa yu doy ci ci ee yaari way dëkkaale sama ci kaso bi arbaabun ay yàlla mu tafare kono yi way façon ci koo xaarun moo gën am ilaaha am yàlla alwaaye seen kenn ak xaar te daa dina jaan yi wax leen na yàlla yu bëri ak jaan yàlla ñu ci gën ma ngeen di xamal waaw ñu wéetal yàlla maaka bu gën a jaamu leen ñu doon yi tur yàlla yi laa naa ndaree tuub tamit su ma ay yoon ci ngeen dugg ak ngeen waaw waaw su ma ci bàyyi jëlee man sa laa rek yàlla yaa ñoom ci tan aw lay yéen su ngeen xate dali laay leer la rek ñaan yàlla amara ci dina mu ala ta do ñu jàng ci laay yàlla rek moom bali ko foofu ne taw yi ñu mo ñaar tay mu yàlla ci laay ci wala ci na dina tax sama ci ko bëri yépp la yàlla mo xamul loolu yaa saay bay ci ñu ay yéen yaari way de tale sama ci kafa bi mo yéen ci jëf gëral amaa lu kuma daal kenn ci yéen te mooy nandal kat bi dana génn kaso bi gannaaw ñetti fan waaye sëriñ am ñaan dala ko sangal sangal sangara ne ko yow da nga delloo ak sa place gannaaw ñetti fan nga génn kaso bi da nga delloo ak say daañ nga delloo ci sa place ngay nandal buur bi nan ko daa nandal bu njëkk de mooy ñetti fan yi nga gént mu des waaye xenam bi mooy ñetti fan bu ree da nga delloo ak di nandal sa sëy di na na waa nandal sa buur na man de waa mala xaru laal keneen ci ne ko yow mi ci des ci ci géntoon ñetti fan yi def mburu ci ci di ko fëkk rek ci boppam mu ne ko yow da nga génn gannaaw ñetti fan te la bu tëddee fi falat ko parce que tey lekk tey ñu naan la ci boppam ne ko yow gannaaw ñetti fan daañu la ci jiwaay daañu la rey dañu la rey ci ci lekk ba nekk ni mooy la ngeen doon ñu ko ci bopp yi ñu ne ko eh jiwoon suñu dara sax mu ne ko ya mata leer na lamrum bi le ci ma mata top yan da ñu ci ci moom ñu ne ko gën ñu ne ko way gën ñu ma ko waxee rek leen islam wa qala ta wax Yuusufa li ne fi ñaan waa nga xam ne tànn wóolu na mu am na woon ak moom maa ji naa ji mucc da mu maa ci ñoom ñaar suñ ko wax ne dana mucc nag mooy nandalkat bi mu ngi ko yóbbante ca buur ba na ko ko fii tudd ma lara bi ko fa sang sa mu ne ko soo delloo ba ca buur ba na nga ma fa tudd de ne ko aw saraw nga ñu tëj ca kaso ba te defut dara waxut dara dañ koo tëj ci kaw tooñ rek te yàgg na ca kaso ba naka la bëccëg rek ñu génnee ñaari sara yi ñu dem ci min dal di wàcc ne Yuusufa yow Ibrahima di sa maam ñu jën ko kucci ko taal safara woo xam ne àddina yëpp bokk taxan ñu kap ko sànni ca safara woo man maa ko laaj ndax bëgg nga ndimbalal kenn mu ne sa ndimbal bëgguma ma ne ko sa borom mu ne sama borom xam li mu xam li ma nekk doy na ma du ma ko laaj dara kooka di sa maam di saa xasab bay waaw ñu kër ko di ko rendi ba yàlla ko jotam xaar dimbali ko wuñ bindee yàqoo ba waaw sa bay léegi yow amul lu may ayati kaso rek ngay wax ne ngay wut dimbalal tur yàlla di wax ne nañ la fàttali buur bi arasi pour ñu ne dara di ko dañ ko soxla ci kaso bi rek ci yàlla ñaar bañ daan di ko bëri moo tax fa ansaaro te fàtteloo ak yi nambal ja seytaan seytaan ci la bi parce que sangam bëri da waa ji ñëwee fàtteloo lu jëm ci Yuusufa sax takkaat wax nga dëgg bëri wala di sa sax Yuusufa ñu ci kaso ba di wax ñu ñaan ay at Yuusufa waaw fàtte kay ren juróom-ñaari at waaw parce que ñuy wax lépp juróomi at la am muy fukki at ak ñaar yoo xam ne am na ci kaso ba leen ba nga xam ne nag ñaar am na fukki at ak ñaar te kaso ba ba yàlla na ma ko génn nag waxaala tawax al maliku buur ba ñu ñëw nag man arrêté na ma dégg sababa xalaat yi juróom-ñaari nag ci man ñu ñëw ci yaakaaroo nag dana dana war na leen dafa juróom-ñaari nag ñu jàpp ñu way napp buur mag ba nag teero yaan ne man day damaa diggante bii ci juróom-ñaari nag yu duub ak juróom-ñaari nag yu xam juróom-ñaari nag yu xam ya wan na juróom-ñaari nag yu duub yee ba sabab suñu balaa suñu diggante naa juróom-ñaari duub foofu la ñuy diwee njëkkal oo xalaat yeneen yàlla saa suñu ñu way waaw waaw yaa yaa malaw yéen borom yi tey ñu ngi koy defal yaa ngi leen di leen dem nag yan tàngoo la ngeen di leen yaa ngi leen di leen leen ma sama ngeen di boobu dem man ngeen ko yéen borom bi xaaloon ñu ne ko alxames alaaji tax a ñu leen leen ñu ne ko ah yéen ngeen baamu ci yéen si baamu solo rek la ba maanaam ñu génn ci saa jaxal yi ñu ngi woy xam ci saa yu dara ñu ngi leen di te ñun sax xamuñ ci ñu sama loolu dañu war a nekk ko rek ñu ne ci yaa ngi dem teg waaye ñun sax xamuñ ci ñu wa xaarata wax nga si waa ji nga xam ne ma jaamu ci ñoom ñu ma ci ñoom ñaari sara nandal kat ba muccoon nag wata karata fàttali ko noonu musa ko fàttali Yuusufa baada ummatin ci gannaaw jamono ji yàgg ne ana man na ñu kana ma solo leen ci kaw yi ci leen fa at leen yónni leen ma mu ne yónni leen ma léegi ci Yuusufa man ma indi leen ci dañ jëwante gi léegi de ñu yónni ko mu dikkal Yuusufa ne ko Yuusufa yow Yuusufa ay waa si ko yow dëggalaakoon bi si dina ko dëggalaakoon ndax lam ko waxoon ci dañ jëwante nga dara dañu ca ci asnaahu génnu ci sama baqaraat yi ci juróom yaari nag imaam yi di way yàqulu na dina wan leen tawoon ci yow yaa leen jàpp ñu di way la ko wa tamit mu daal dina juróom yaari gub ko bi ñu di way jëkkal boo xalaat yeneen yaa bi taat ñu di way jëkkal daal yoo laqale noon ar jama ma dellu ila naa si jëm ca buur ba daa la ndax leen moom yàlla moom xam ci ñu di way dëgg xaala wax yow suba mu ne jëriñ jëriñ dëgg xaat te sara na bay leen daba ci ñu juróom ñaari at taaba ci toppaloo dañu toppaloo juróom ñaari at waaw ci kanam waaw ci bay ati naa juróom ñaari at ci kanam yëpp juróom ñaari at naa tàngo de waaw su ngeen bayee mbay mi dina bëree bëree bëri ba ngeen ko mën a lekk ba mu jeex moo tax sama xasat tum mu ngeen góob parce que rawu bay ngeen ko ci sumbul yi ci sumbul yi moo tax de lu ngeen góob bu leen ko bojjee denc leen ko noonu rek mu bañ a yàqu illaa xam leen dara ay ñëw moo tax lu ngeen da ngeen lekk ko da ngeen di lekk rek na ngeen ko bojjee wal ko la ca des lépp bàyyi leen ko denc ko ci magasin su ma yaati topp dana dikk limu bày di sari ko ci gannaaw loolu sabam juróom-yaari at ci daal ni yooyu d'accord juróom-yaari at ci d'accord dana ci topp gannaaw bi juróom-yaari nag yi duus yi ak juróom-yaari dug yi ni tafi mooy juróom-yaari ati naataange yi juróom-yaari nag yi xom yi ak juróom-yaari dug yu d'accord yi mooy juróom-yaari ati d'accord ya xal see ñëw yaakul na danañ lekk ñoom ati d'accord ya man xaddam tum la ngeen jiitaloon lawoon na ñëwee leen lépp lu ngeen dencoon ci ati naataange yi nag ci ati d'accord yi moom ngeen di dundee i laa xal leen dara aji ñoom ati ci ñoom da ngeen denc ko su ma yaati topp dikk min bari saalika ca gannaaw loolee amul xat fii yu xaasu def na xetli naa suñ ñi fii ci moom gannaaw ga nag yàlla dana xetlee di ñu def yi te ñu taw de waaye assuré na te ñu nan fii ci moom